Johannes heeft voor de production. Nee, staan. Alo, ngay leer ñom ñaar. Boko la mo yoon kinaaw ngem bo gemul wax li. Attention chokas nako. Ga ko fayu. Ga ko boko la. Ndaysan ñom ñaar ak yi nonu. Ndaysan mbokki ma ngi nuyu. Mam Cherno Diop ndeysaan borom yëmbal maa ngi lay responsable politique nekk fee ca yëmbal maa ngi lay nuyu la koy door ay coup Pogala Gackou ki dugal ay coup fay Pogala fay la attention ba door daanu ba kawram Gackou gi xeex xeeb sax waaye maa ngi woon si maam Thierno Diop maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax responsable politique nekk fee nga xam ne mooy ca yëmbal maa na jawal na Pokola fayu na ku yaa ngi dal googu googu dóor ay cortège dóor Gakou koy dóor muy dal attention kaw dom attention kaw attention kaw war na ko ndomba laa ilaha illallah na ko ndomba Pokola Baldé Gakou Pokola Gakou daga kudo pagala bala da daga kudo pagala bala da daga kudo pagala bala da daga kudo la ilaha illallah pagala da daga kudo pagala bala da daga kudo lu xew morreu. defar ko de. mooy war kii moo gëmul wax li attention cokkaas na ko.